asalaamualeykum waaleykum salaam Bay Si Mansour nee na neex na bokk yi fi daje noo ngi leen di nuyu noo leen di ziyaara waaye ñoo ngi leen di ndokkel ci li nu bokk ak yéen seq ko ak yéen waaye bala nuy sore ñu wax Sëriñ bay Si Mansour ni ko jazakallah ana xeer fa tabaarakallaahu ni mu waxe ku ci bëggul bu fi yonent bi dikkoo nit doo bëgg ci ak dikkam waaw te itam aljanna pour nga dund fa fii nga koy tàmbale bëccëg boo demee ba yëg ci sa bopp ni seexlu nga deru góor ñépp doo ci teg lu ñaaw sa àjjanaa ngi tàmbali mu mel ni fa tabaarakallaahu li mu wax am na solo rafet na tabaarakallaahu mu mel ni nag ni nu daan dikke moom lañu ñu dikkee moo di Seyid Cheikh Ahmed Tidiane Sy wax ni kaay leen ngeen dem bu ngeen demee na Xaaj Malik Dabakh dem ca jàkkay Sëriñ babakër mu ni yow nga dem ci juma Cheikh Al Xaaj Malik Euh, mu wax ni jël leen sama njabootu biir kër ngeen wax maam Maodo mu ànd ak ñoom sëriñ Habib ak Mouhamed Abdourahman ñi ngeen fi gis ñu àndal ñépp njabootu biir kër Serigne Cheikh lañu mu waxitam ni budul woon li ko artrosam daaneel seddam kër gi ñépp am sedd maa ngi koy waxanteeg sëriñ kër ci biir oto bi bi nuy ñëw moom sëñ Cheikh mu wax ma ni ma yaag maam Maodo bu ngeen demee wax leen nit ñi ni leen dama yéene woon ren guddi gàmmu gi ma ñëw ci jumaa Cheikh El Hadj Malick def fa une de temps dem ca jumaa Serigne Babacar Sy def fa une de temps door a wëlbatiku dellu Dakar mu ni waaye nañ ma ñaanal ndax buñ ko fekkee te ma mën ko mottali ah wér wér ak wéradi ñoo bokk ndey ak baay xuliqa al insaanu daifan l'homme est naturellement fragile loolu la yàlla wax ci alquran waaw lu ko dal rekk mu wonk ñuy teg ci nuyoo sëriñ Babacar di nuyu sëriñ Alioune Mbacké bi nuy téléphonente bërki démb dañu seet li ñu bokk maak moom ak Serigne Mbaye Sy Mansour mii toog Serigne Alioune nekk doom ci ñun nekk cousin ci ñun nekk rakk ci ñun ndax Cheikh Gaynde Fatma wëy juram ku tudd Serigne Touba tudd Cheikh El Hadj ngir yàlla ku bokk ma gis lu yéeme loo xam ni dox na diggante sëriñ tuuba ak Cheikh El Hadj ndax dafa am xale. bu tollu ci jàng alquran sëriñ Touba yëkkati ko sedd ko Cheikh El Hadj ni kon na ko jàngal alquran bi mu ko jàngalee alquran ba mu tari alquran wattu ko Cheikh El Hadj Malick bind lettre Serigne Touba boole ndaw li ak mag mu ko yóbbu. pour mu wax sëriñ Tuuba ni ko ki nga ma joxoon alquraanam rafet na bi sëñ Tuuba julleegee ba noppi woo ndaw li mu joxoon Cheikh Al Hadj pour mu taril ko alquraan mu di ko taril alquraan ca ba mu julleegee ba bi fajar di jot mu xam ni alquraanam rafet na sëñ Tuuba wax ko ni ko nag alquran ji rafet na waaye bu ma sañoon nga jàng xam-xam lu ci sa xalaat ndaw li ni ko comme son baay daf ma laa dénkoon loo tëral rekk ma ànd ceeg yow sëñ Tuuba ni ko kon naa la delloo ci sa baay Cheikh El Hadj bind leetar boole kook ndaw ndaw li del si ci Cheikh El Hadj ànd ak xale bi mu ni ko sëriñ bi dafa wax ni dafa bëggoon nga jàngal ko xam-xam comme alquran ji rafet na Cheikh El Hadj ni ndaw li ndax dégg li sa baay sëñ Touba wax mu ni ko dégg naa ko Cheikh El Hadj Malick di ko jàngal xam-xam ba mu demee ba xam-xamam rafet mu bind leetar boole ko ndaw delloo ko sëriñ Touba bi sëriñ ju julleegee ba noppi di ko di ko questionner muy repondre luy xam-xam li Cheikh El Hadj def ci dënnam ci xam-xam mu di ko ci laaj muy tontu ba bi fajar di jot Cheikh Ahmed Bamba wax ko ni ko sa alquran rafet na sa xam-xam rafet na li des léegi nag mooy nga am kilifa ci wàllu tariqa ndaw li ni ko comme son baay yow la ma joxoon dama lay jox son bopp pour jébbalu ci yow sëñ Tuubaa ni ko bëggewuma ko noonu kaay dem ca Cheikh El Hadj mu jox la werd waaw ndax kóllëre gi dox sa digganteeg moom ci wàllu alquran ci wàllu xam-xam mu di gest bu rafet ma gis geste boobu Sëriñ Abdul Ahad ñaareel ko ndax dañu dem Touba dafa invité Serigne Cheikh Touba moom Serigne Abdul Ahad Serigne Cheikh Tidiane si yóbbaale nu Serigne Mbaye Sy Mansour Serigne Abdul Aziz Maodo Sy bu Cheikh Al Abdul Aziz Maodo Touré bu Serigne Hadi ak man ba ñu eggee Touba sëriñ Abdou Lahad dalal Serigne Cheikh si ba noppi wax ko ni ko dafa am ñeenti taalibe yu fi ñëw démb wax ni fu ne dañ la fa dàkk pour mën a jot ceew pour nga jox leen werd mu ne ko waaye amuñu chance su gis la ñu dégg ni yaa ngi jëm si Touba nag ñu ñëw pour dàkk la fi maa leen dalal ma bëgg boo noppaloo ñu indi leen rekk nga jox leen werd sëñ Cheikh Tidiane si ni ko mi góor gi mënoon nga leen def njaboot sa njaboot la nu lew nañ la doom mu ni ko yéene jee tax comme dañuy yéene woon ci yow fu nekk ñu dàkk la fa mënunu laa jot moo tax ma dalal leen bëgg boo noppaloo nga jox leen werdu salaatul fatih ma ni ñaari gestu yooyu bu dul màndu doo xam nu mu tudd kon fa tabarakallahu lii sëriñ Mbay Si Mansour wax ci sëriñ Alioune Mbakke Gaynde ma wax na dëgg fii mu ñëw maama ma ko moom waaw tabarakallahu rafetlu nañ ko bég nañu ci moom sëñ Cheikh dafay wax ni mooy sama doom ci biir kër sëñ Cheikh Mbacke loolu la yàlla dogal ci moom waaw du ñu toog semaine bu ñu téléphonentewul ay yoon yoon euh, lii sëñ Babacar wax ci guddi gi ak ki ko sos Cheikh Haj Malick radiallahu taala ku bañoon sonnal nit la waaw waaye guddi gi bi mu ko sose na mu ca insisté wax ni bu sañoon bu nu koy def képp ku mu am te amoo ngant dëgg dëgg dëgg dëgg nga ñëw jàppale ko ci mu ni ndax bu yiw wi ñëwee nga bokk kook moom ma ni sos bu njëkk ba ña dajewoon woon matunu téeméeri nit mu ñaan yàlla mu màggalal ko ko boobaak léegi nag xawma ndax màgg naam déet defe naa la mu ca ñaanoon boromam yépp boromam defal na ko ko fa tabarakallahu kon nag yàlla na sax ilal abad Eh, ku yéeme la moom Maodo ñépp la seeni oom di metti Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu dama wax ni ku yéeme woon la ci bëgg lu baax ku yéemewoon la ci xam boppam te taxaw na fii ci Tiwaawoon ci zawiyaam waat ci ni benn noon rekk la am moom Maodo ñu ni ko kan la mu ni sama bakkan mu ni xeex naag moom nag ba tër ko rendi ko ndax bu ma ko seddoon rekk yàlla gedd mu ni yàlla dimbale na ma ba ma tër ko rendi ko mu ni dinaa yëkkati sama loxo it wax ni lu yàlla tere mësuma ko def mu ni lu mu digle itam la ca tollook sama kàttan def naa ko bu ko neexee nag léegi mu yóbbu ma safara walla mu yóbbu ma aljana sama yoon nekku ci waaw li mu digle ni daal nañu ko def la ca tollook sama kattan def naa ko mu ni la mu ni nañ ko bàyyi masuma caa def dara loolu xam boppam ak xam taxawaayam moo ko ko may euh, fii fii ma toog jumaa ji buñ fi duggee rekk am souvenir yu ñëw ci sam bopp sëriñ Babacar Sy radiallahu taala anhu ànd nañu may xale bu tuuti ay gàmmu fii la yam daan tege Cheikh El Hadj Mansour ci ko El Hadj Abdoul Aziz toog di woyal sëñ Babacar pantere bi ci lañ daan recevoir euh, autorité yu gouvernement français yi daan ñëw ci guddi gàmmu gi pour ndokkeel si buñ mësaan ñëw bunt bi lañuy ñuy ubbi sëñ Babacar a ngi toog ci fauteuil jàkkaarloo ak ñoom dafay summi bone bi mu sol rekk ñu xool ko ñoom ñëpp nekkoo garde à vous mu ni sëñ Cheikh demal wax ak ñoom dem wax ak ñoom ñu jox ko ndokkeelam seen ndokkeel félicité góor gi ci guddi gi ndax guddi yonent bi la ñun ci gannaaw foto yu sëñ Babacar Sy bi lañ daan nekk Serigne Mansour Serigne Cheikh Serigne Saliou Sarr ak man ñoo fi daan nekk ak suñuy termusi kafe ak suñuy biscuit waaw góor gaa ngi firi ñu ngi ci gannaaw moo tax ma ni daf may jox dafay yee ay souvenir ci man waaw parce que boobu wax dëgg yàlla awma fukki at waaye fu góor gi jëm rekk dafay téye ci sama lox boo waxee mu ni mooy magu kër gi ndax fonk euh, Cheikh El Hadj Malick mu wax ni moom Cheikh El Hadj mu wax ni guddi gi def ko sédde ki mu def model xam nga ku dëgër fit la moom Maodo amul lu muy rus ci war a wax dëgg waaw bi muy tànn yonent bi mu nekk modelam boobu mi ngi ci biir tariqa cheikh waaye mu wax ni cheikh sama sëriñu tariqa lay doon mais du nekk sama modèle parce que bu ma dee roy maamam lay roy mu ni te maa ngi ko teg ci li cheikh digle cheikh dafa wax ni lu ma leen wax bu génnee alquran ak sunna yonent bi bàyyi leen ko Cheikh El Hadj ni kon loolu ma wax maa ko teg ci li Cheikh wax jël maamam def ko muy sama modèle yemu ci yemu ci moom Cheikh El Hadj mu wax ni li nuy tudde gàmmu benn la ci yi ma yéene yonant bi waaw bii nag moo ci gën a siiw eh, pour mu def yonant bi modèle foog mu am fu mu ko teg xam nga wolof yi dañuy léeb di wax ni ku sa wujj gërëm booba dee waaw ci taxawaay yonent bi bu doon am wujj bu ko mat wujj occident lay doon waaw waaye occident dem nañu ba personnalité yonent bi jox leen complexe euh, gëm nañu ni personnalité am mbindeef amu ko ñoom Occident waaye li leen gënoon jaaxal te ñu ciy def ay recherche di ci gëstu mooy fu mu jaar ba am personnalité boobu Euh, wax nañ ni ñaar ñi ñi mu gënoon jaaxal kii ñi ngi koy tudde Napoléon Bonaparte personnalité yonent bi jaaxaloon na ko ba recherche bu ne def na ko pour xam fu mu jaar ba am personnalité boobu ki ci topp mooy ki ci mujj ñu di ko wax Adolf Hitler Hitler daf foogoon ni personnalité bi yonent bi am mën na ko am par la li mu dugg yépp loolu ko ci dugal te bi nu ko laajee yonent bi laaj ko personnalité am fu mu ko jëlee ci benn baat rek la ko lay waaw addabani rabbi nee na ndab laa lu yàlla yekk jikkoom ñu ne kon yàlla daf ko dimbali ñu ni déedéet ndax bi yàlla laata yekk jikkoom ci ndabu yonent bi fekk na ndab li set yàlla du yekk ci ndab lu tilim mukk waaye boobu fekk na yonent bi li ko war yépp ci sellal jikkoom def na ko lu jiitu nubbu wa dikk Eh, may wax ni boobu moo ko lay waaye itam comme kenn du am personnalité te nekk un inculte nekk jaahil kenn mënul am personnalité nekk un inculte nekk jaahil yàlla li mu njëkk sant yonent bi moo di mu ne ko dàqal réer ci sa bopp waaw iqra du jàngal dàqal réer la waaw ci sa bopp waaw parce que boo dàqul réer doo mën àtte àdduna waaw waaw euh, dama mës di waxtaan ak sëñ Cheikh Tidiane si boobu gën naa fi nekk ndaw ma ni ko ku bëgg am culture nooy def mu ni ma boo ragalee wéetaay de doo ko am waaw boo ragalee wéetaay doo am culture parce que culture dafa laaj gëstu te kenn mënul gëstu ci biir mbooloo waaw mu ni ma bul seexlu itam lecture mu ni ma lu dikk ci sa loxo rekk liir ko ba pare nga tànn mu ni ma loo jàng ci histoire it fexeel ba nettali ko mu ni ma boo ko nettalee na fexe ba boo koy nettali nga dund ko waaw mu ni ma lu ci tegu rekk dana am loo xam waaye yonent bi bu ñu ko dee seet ci wàllu ci wàllu mantiq doo mën a xam li nu wax ni ummi yi la fu muy tegu ndax kiñ ni ummi yu la te bu ko àdduna yépp déggoon tegu ci njub nan ngay mën a nangoo ni ummi yi la li ci des kañ moo di ndax jullit yi dégg nañu ko déggu dëgg dëgg dëgg walla dañ ko dégg déggu aada maa ci werante démb ba tey xam nga dafa am question yoo xam ni bu ko nit posé rekk foog nga laaj ndax kii nit la walla du nit xam nga dafa ku ma laaj ni ma ki woor ci wàllu koor mu ni ma ki woor yendu ci naaj wi ak ki woor yendu ci climatiseur kuy ëpp yoon ah, ma ne ko kii yendu ci climatiseur koy ëpp yoon mu ni ma lu tax ma ni ko yàlla kenn du ko seet fu tàng yàlla boo koy seet seet ko seet ko eh, fa sedd mais bu ko seet fa tàng waaw yooyu ay question la yoo xam ni daanaka amul sens waaw amul sens ndax sëñ Babacar Sy radiallahu taala daan na def léeg-léeg nit ñëw pour laaj ko mu ni nañ ko yóbbu ci ilimaan ji du ko recevoir sax bu kooku génnee mu ne dafa ma bëgg a werante ji ca Dakar te duma ko nangu waaw waaw mu ne duma ko nangu mukk ba tax na moom fekk ngay tuddoon di njabootu yonent bi nga li nuy séentu ceew mooy ak nite waaw boo nitewul rekk am na loo ci wàññi fa tabarakallahu loolu la ko yàlla defal mag ñu baax ñi nu am fa ñu teg seen yaakaar caaxaan ñu teg ko fa waaw bu ko defee nag bu guddi gi jotee kemta layu waxtu yi nuy taseeg yéen barkeelu ci leeram barkeelu ci guddeem fa tabarakallahu ñu bokk koog yéen ci biir bokk koog yéen ci biti loolu la yàlla dogal waaw ah, ndax itam xam xam xam sa cër na mu tollu lu am solo la waaw eh, Umar ibnul Xataab Umar ibnul Xataab eh, ku xamoon cëram la waaw li ko yonent bi defal ndax eh, dañu def délégation dem seeti ko ah, ni ko daal dañ la bëgg a ñaan suufi garab yi ngay nelawee nga bàyyi ko waaw mu ni mu wax ni euh, nelaw ci lal bu ñu defaree ruum bu wurus ak nelaw ci xobi garab laa yemale waaw mu ni ndax fu ma ci tëdd rekk cër bi ma yonent bi defal la ngi ma njege naa yoo foofu la xàmmee yem waaw dem ba boo tëddee ci xobi garab ak boo tëddee ci lalu wurus moom nga yemale ndax sa cër foo tëdd yaa ngi njëgënaayoo ak moom nga sant ki ko defal waaw tax na tabaarakallaahu ah guddi barke la guddi ñaan la guddi xéewal la lépp ci barke yonent bi ak leeram tabaarakallaahu yal na yàlla mottali yéene ki ko sos ba mu agsi ci ñun waaw li sëriñ mbay si wax itam rafetlu nañu ko dégg nañu ko ndax digganteem ak sëñ Cheikh Tidiane si la wax naa leen fii ni leen am na lu mu seq ak sëñ Cheikh man xawma ko sëriñ Abdul Aziz xamu ko keneen xamu ko ndax dañu jóge Tuuba di ñibbisi sëñ Cheikh Tidiane wax ni dama bëgg ngeen may ma maag sëriñ Mbay Si Mansour rekk ñu dugg ci oto muy oto boobu ko sëriñ Abdou Lahad mayoon bi nu duggee ci oto bi mook sëñ Cheikh ñu yëkkati ba vitre bi dox seen digganteeg chauffeur bi ñuy waxtaane Touba mook sëñ Cheikh ba ak si jam ñaaja ñoom ñu continuer sur Tivaouane ñun ñu ñëw Dakar man yaa ah, lañu doon wax ñoom ñaar ma ni kenn du ko xam ma ni ndax sëñ Cheikh du nettali sëñ Bay Si Mansour du nettali waaw ñoom ñaar rekk la concerné fa awxaa ila axihi ma awxaa ñoom ñaar la yoonu kenn nekku ci tax na jikko jikko yu sew jikko jikko yu rafet moo taxoon yàlla yónni yonent bi waaw ah, parce que la mu ko wax ni ko demal fexeel fexeel ba ñi nga jëm seen jikkoy ndaw ñu dindi ko te kàllaf parce que kàllaf dafa am fu muy tegu ko defee tabarakallahu bu nu déggee message yu mag ñi rekk mu baax Cheikh El Hadj Malick radiallahu taala anhu lu ne def na ko lu ne def na ko ci digganteem ak yonent bi wooy wu ne wooy na ko ko ngir jaruñu ci leeram ah nu fi nag tabarakallahu ñuy continuer euh, seen leer di ko dund di ñaan ci seen bark te lii mu wax léegi ci digganteem ak Serigne Cheikh lu am la waaw sëñ Babacar Sy dafa am lu doxoon digganteem ak Cheikh El Hadj Mansour c'est ñoom ñaar ni ñu xamante kenn xamewu leen noonu waaw moom sëñ Babacar Sy ak Cheikh El Hadj Eh, dafa am ñaar yu jege yooyu xew xam nga Cheikh El Hadj moo njëkk a tàggee sëñ Babacar si waaw moo wax sëñ Cheikh Tidiane si ni ko sa papa dafay dem te ma ne duma toog wallahi at mooma mooy at mi sëñ Babacar mujj a fii ci Tiwaawan sëñ Babacar bu euh, ko daan rang ci bésu gàmmu di ko ziyaara fu 13 jote mu ni nañu arrêté rang bi may ma ma yéeg waajal tisbaar sëñ Babacar si di recevoir nit ñi ba nu wax ko ni ko treize heures trente jot na mu ni nañu bàyyi nit ñi nuyoo ñu bàyyi rang bi nit ñi nuyoo ba deux heures mooy ñu attire ci attention ni ko deux heures mooy la quart jot na mu ni nañu bàyyi nit ñi ñu nuyoo nit ñi di nuyoo ba quatorze heures ñu attire attention mu ni nañu bàyyi ñu nuyoo ndax diggante at ak morom ma lu ne xaj na fa bi gàmmu gi dellu si fekk ko fa waaw mel ni Cheikh El Hadj Mansour tàgge na ko waaye moom itam tàgge na boppam waaye boobu kenn sañul xalaat ni gàmmu gi dellu si du ko fi fekk eh, ba tax na ñoom ni ñu xamante ci seen biir ak la ñuy yëgante ñoom rekk ñoo koy seq dara du leen gaañ nag dara du leen gaañ njaboot mën na gaañu ci seen diggante waaye ñoom dara du leen gaañ waaw lu yéeme dafa am ci 1940 bi ñuy bombardé Dakar fii bali Ndakaaru ya xam nga sam Pape Cheikh El Hadj Mansour dañu ñëw wax ko ni ko fi nga fi nga fi nga nekk am na ubbi balu kano bu fa dal moom Cheikh El Hadj pour di ko wax mu génn balay foofu di jàpp benn question rek la laaj waaw dafa laaj ndax sëñ Babacar jóge na Tëngéej dugg Dakar ñu ni ko jóge na tëngéej léegi dugg Dakar mu wax ni kon fii tàkk nañ ma ca tibbal xali cuuraay dara dootul xew ngir xam ki mu bokkal mooy kan eh, eh, loolu la leen yàlla mayoon malheureusement malheureusement nag fii eh, nekk fi chef de canton moo gën a yomb nekk fi tu nitu yàlla waaw boo ko defee rek duñ la xam tabaarakallahu tabaarakallahu façon bu ne def nañ ko pour dimbali njaboot yi ñu jot ci seen borom ba tax na tabaarakallahu ñi ngi rafetlu teew bi njaboot yi teew di leen ci sant di leen ñaanal yàlla ah, wax naa ni bu ngeen ko bàyyi woon ak moom mu wéet ci waaye itam rek bu jotee kenn dootul am jàmm ngir dundalal ko ko ñu di ko ñaanal boroomam yàlla yokk leeram ak ñi mu ko bokkal waaye di ñaanit leeram yàlla na ko ay njabootam jariñoo ci zaahir ak ci baatin ah dañu xam ni bu nu agsiwul woon rekk musiba am waaw ndax ni mu ko fonke waaye bu dee suñu nijaay ji toog sëriñ bay ak man mii ak sëñ Alioune mii Mbàkke sëñ gàmmu gee ko fi bàyyi woon waaye rek léeg-léeg mu daw dem biti réew ñu maaseel ko oom yi tuuti mu daw dellu si waaye ñun ñëpp ca la nekk waaw wallahi sëñ kër bi ma ko fekkee ci kër ga ñun ñaar ñoo bokk toog ci suuf toog tàllal suñuy tànk ah li mag ñi am ci sedd yëpp ñu donn ko waaw waaye rekk ñu xam ni mënunoo bañ a ñëw mu ni ma xanaa ñu dem rekk wax ñaari baat bàyyi xaaju tafsir mu gàmmu na mu ko daan defe mënuma buñ fa amee fukki minute sax baax na ma ni ko sëñ Cheikh Tidiane si lool la ñu wax maam Maodo ngi nii bu ngeen fa amee fukki minute baax na kon nag ni sëriñ Babacar waxe ñi ngi leen di ndokkeel ci guddi gi ci turu sëñ Cheikh Tidiane si di leen ci baalu àq di leen ñaanal yàlla wér ak wérle mucc ak muccule sutura ak barkeeg xéewale yàlla sàmm nu sàmmal nu musal nu musalal nu ci taahir ak ci baatin ah, lu nekk rekk dañ koy jàppe ni ñu ko gisee waaw xat-xat dafa dikk wéra di dikk waaw eh. Cheikh El Hadj radiallahu taala anhu daan def bu toogee ren ba déwén te yëgul lu ko metti mu laaj ndax boroomam daf koo fàtte moom Maodo wallaahi toogee ren ba déwén waaw toogee ren ba déwén bu yëgul lu ko metti mu laaj ndax boroomam daf ko fàtte wallaay eh, réew mi itam di ñaan lu ci feebar yeeg jàngoro yi lii ñuy soow xawma Ebola la tudd xawma mais peste bu ko gën a metti amoon na fi waaw Cheikh El am muqaddamam bu faatu ca Lazare parce que fa lañ leen isole woon yóbbu leen fa ñu wax ko ni ko muqaddam bi faatu na mu ne nañ ma jox néew bi ndax taalibe cheikh la dañ ko war a sang sangin bu sel sang ko sang bu sel wadifaal ko door koy rob tubaab yi ni mënuñu ko jox néew bi parce bu génnee jàngoro bi dafay walle Cheikh Hadj Malick ni waaw ñii sang néew yi lu tax du leen wàll la ñu ni ko gan yi ñuy solo tax mu ni tur yàlla ko gën a for ah. tur ko gën a ñu ni daal mënuñu ko ko jox mu ni kon dinaa ko jël si par la force gannaaw tisbaar moom Maodo benn colonel bu fa nekk ni jox leen ko néewam waaw parce que moo ëpp jàmm waaw mu ni xanaa xamuñu tur yàlla mu ni waajale jàngoro joo dégg te bañ mu dal la waxal li yaqtaa tarafan du la dal moom Maodo waaw mu ni jàngoro jooy dégg te bañ mu dal la waxal li yaqtaa tarafan nga tëfli daan nga toog ak mag ñu tudd jàngoro nga gis mu li fekk baat ba la jiital waaw Cheikh Haj Malick nee na jàngoro joo dégg tey bañ mu dal la boo ko waxee du la dal waaw daf daf koy xam nga noonu la def mag ñi da ngay toog rek dégg wax benn jàngoro nga gis mag li fekk baat bi la jiital yooyu ñoom yàlla daan leen ko may ci seen biir lanu ciy jëfandikoo tubaab yi xamuñu ko waaw ba tax na seen barkeeg seen cër seen martaba seen ndono ak seen faydu ba ba àddunay tukki du fi jóg ko defee nag ñuy ñaan ci barke boroom guddi gi yàlla gën noo rafetalal ci biir ak ci biti ñu di ci ndokkeel turuq yi ci réew mi yépp waaw fa tabarakallahu këru diine yi nu bokkal ndax moom réew mi li mag ñi bëgg mooy am mais li mag ñi bëggul du fi am mukk ko defee ñu ñaan yàlla yokk seen leer yokk seen leeru bàmmeel fa tabarakallahu yàlla wàcce seen barke ci njaboot yi ci biir ak ci biti ndokkeel suñu nijaay ji toog sëriñ Babacar Sy sëñ Cheikh daf waxoon ne bu ngeen demee ngeen ziyaaral nu sëriñ Abdou ndokkeelul nu ko ngeen ziyaaral nu sëriñ Mbay si ndokkeelal nu ko ngeen ziyaaral nu Hajj Malick nu ko ngeen ziyaaral sëriñ Babacar bu alxaaji Habib ndokkeelal nu ko kon nag si ñu ngi leen di ndokkeel maa ngi jéggalu nag parce nee na am sa nijaay di wax ba muy sàcc màngo ma ni ko jéggal naa ko maa ngi koy jéggalu ci moom dafa am fii ci biir Dakar benn tubaab boo xam ne buñ ma añ bay dem géej buntu kër tubaab ba dafa am sonnerie bu ca sëriñ bay tolloo rekk dafay ba sonnerie bi ñu daw làqu ndeysaan xam nga tubaab dafa fonk sieste te sieste yenent bi ko santaane ku nu fekk nga koy def bu ñu ne dafay sees dañ naan tubaab nga waaye bu ñu bësee sonnerie bi rek bu tubaab bi génnee ak kiloot ji muy sol yeewu ci bëccëg bi du gis kenn fekk làqu nañu ndeysaan am bés nag tubaab bi mbokki tubaabam yim xamoon ñu am ay xaj mu àbb leen ko waxtu wa jot rekk ah ñu jaar ba ñu tolloog buntu kër ga sëñ Babacar ne néej bu tomb mu ne car tubaab bi ni kulbet buntu bi fanweeri xaj ak juróom-ñett ndeysaan géej géej lañu àkke ji yàlla xam na ko ndeysaan loolu kenn mësu ko gis kenn mësu waaye rek ñu mujj bu nu añee ba bëgg a dem géej ñu teggi waaw teggi bàyyi waaw ndeysaan waaw eh, dama dama mënoon tooñ te aw doole moom moo ma daan xeexal wallahi waaw léeg-léeg rek ponkal wut si ma mu dox sama digganteeg moom waaw te daawuma won na baat baat moom daawuma ko won loolu la yàlla dogal sama diggante ak moom waaw eh, am na lu ñu seq lu kenn dul xam waaw eh, mag ñi rek a ko xam fa tabaarakallaahu eh, mooy suñu nijaay di suñu wéy wayjur ndax ki ñu ko tuddee sëñ Babacar Si fa tabaarakallah sëñ Babacar fonkoon ko lool waaw sëñ Babacar ko ndax xam yéene ji ko ko Cheikh El Hadj tudde wallahi ah, te itam Cheikh El Hadj Mansour taxaw na waat ni mësul yéene sëñ Babacar safaan sëñ Babacar taxaw waat ni mësul yéene Cheikh El Hadj Mansour safaan kon nag yal na yàlla wàcc seen leer ci ñun wàcc seen barke ci ñun fa tabaarakallaahu ñi ngi sant ñépp njaboot yi njaboot yi ñu ngi leen di sant ndax fa tabaarakallaahu da yaakaar leer ci kër gi moo tax ngeen di ko fi wut xam nga fële ñu doon reere ci kër ga maa ngi fay nettali euh, sunu woy jur bu jigéen ku mënoon yar la soxna sukkat may wax ni dafa ma mës seen ñu tungoom ma te booba ñeenti at laa am bi timis di jot mu taxaw di séentu fu ma ne pour julli timis daw mu seen nag ñu tungoom ma ñu jóge ci tooli màngo yi di ñëw bi nu ñëwee ñu julli timis ba noppi mu wooma ni ma waaw yow laa seen ñu tungoom la ma ne waaw mu ne ma dangeen defe ni taalibe yi seen jaami maam lañu seen naw lay bàyyi leen jur yaakaar leer ci kër gi ñëw indi leen fi pour ñu wut si ko ngay wax ñu tungoom la ma ni ko waxuma ñu tungoom ma xale bi ma tungoomoon nekk mag mu di bikri yi gay moo ma tungoo moon moom mu ñëw ci soxna si di ko wax ni ko yaay moom waxul ñu tungoom ko dañ ko yërëmoon ci dox bi parce que groupe bi moo ci gënoon tuuti mu ni waaw lu tax mu topp leen ko mu mënul dox soxna si commencé na di ma caw 9 ba une du matin wallaahi bu gisee nga nuyu mag jox ko benn loxo mu téye sa nopp waaw kaata ko kaata ba sa testé nii jóg mu ne lu tax ngay nuyu sa baay diw di ko jox benn loxo ca ngay amee habitude bu la xale nuyoo sax ñaar loxo nga koy jox pour won la ni li Cheikh El Hadj waxoon ni lu ma mën a defal doom ju jur mën naa ko defal ku am ci man yaakaar loolu moo nu booleeg yéen lu ci nekkit la ca war yëpp ngeen di ko def di ko rafetal kon nag yal na yàlla fay leen ci barke boroom kër gi waa ngeen xam ni daal ah ñoo bokk lépp waaw te ñoom ay bàyyi xaqiqa la ñuy doon ila yawmil qiyaamati ñoo gi yéen bokk ndono ñoo gi yéen bokk yaakaar ñoo gi yéen bokk leer gu nu soxla kon yàlla na ko yàlla defal ñu sant ñëpp ci turu sëñ Babacar Sy ah ne naa ko nañu ko bàyyi rek mu dem noppalu ji bu dee fukki minute buñ ko fi amee xaji tafsir a ngi ni waaw ah, tabarakallahu muy rafetal na mu daan rafetale yàlla na ko yàlla may kàttanu yàgg ko rafetal waaw li nu yaakaar itam ci barke mag ñi yàlla bum nu ump waaye rek tabarakallahu feebar yu sew sewaan yi bari na waaw feebar yu sew sewaan yi bari na ndono ndono kër gi moo diise noonu ko defee lii mu wax bu ñu demee nettali ko sëñ Cheikh si dana ci bég lool ni mu waxe waaye itam ñu ñaan rek yàlla may nu bàyyi nu fi ba déwén ah bu déwénee sëñ Cheikh ne mu ñëw eh, def fi une heure de temps jóge fa dem jumaa sëñ Babacar def fa une heure de temps ah, bu bu buñ ko ne nit ñi dañu namm sa waxtaan moom sëñ Cheikh mun la ma xamoon yëpp wax naa leen ko waaw ah, la ma xamoon yëpp wax naa leen ko te wax na dëkk mu ne dama mujj wëlbatiku di nafar son bopp di dégluwaat samay kaset xam ne waaye li ma xamoon yëpp wax naa leen ko waaw ma ni mag dana ca tollu Cheikh El Hadj am na tàkkusaanam fii mag ñépp a jooy waaw leen li ma leen jàngal yépp ñi ko ci jëfe matunu fukk ndax dangeen bëgg a tas sama yaakaar mag ñépp a jooy ci zawiyem bi tàkkusan moom Maodo waaw dal na yonent bi ci zawiyem mu dal ci ko ñoom Seydina Abu Bakrin dal ci ko ñoom Seydina Omar dal ci Seydina Ousmane dal ci Seydina Ali ni leen ba léegi dama yëg ni jikko jaahiliyaa ngi ci yéen ñu am kersa lool bu leen mësaan a bëgg a blessé daf leen di wax ni jikko jaahiliyaa ngi ci yoon ak li mu daj li mu daj 23 ans diggante aaya ak aaya diggante nattu ak nattu diggante euh, euh, xare jaasi waaw ci toolu xare 23 ans mu nekk ci ba xëy suba rek yëg ni déggunu ko mais lu ko gën a metti amul kilifa kañ buy wax ak njabootam yaakaar ni bëccëg dana dikk ñu dégg ko tax waaye boo demee ba yëg ni dégguñu la foog am lu la sopp waaw foog am lu la sopp moo tax dañuy fexe ba li njaboot yi yaakaar li nu yaakaar kilifa yi yaakaar ci ñun sunu jikko bañ leen nax yal na nu ko yàlla defal ah sëriñ Babacar xam naa nga ñaan ci sa barke maam ñaan sa barke turandoo ñaan ci sa barke baay yàlla def jàmm ci réew mi defal nu jàmm biir ak jàmm biti ah tabaarakallaahu moom réew mi diine jee fi nekk ak politik bi euh, wax naa ko ci benn waxtaan bu ma doon def waaye dégg naa ñi am na ñu koy weddi parce que dama wax ni daara yi ñoo boot politique bi am na ñu ci d'accordul may wax ni boroom fetal bu sukkee ci kanamu boroom kurus ni ko yàlla ak yow c'est parce que borom kurus gën na saxul waaw kon daara yi ñoo boot politique gu réew mi këru diine boo dem ko ko jiite boroom cëru politique sukk na ci kanamam ni ko yàlla ak yow te gis nga politique dafa gaaw saalit loo nit waaw ci boo ñàkkee sa cëru politique waaw euh, wàcce nañu ministre daan nañu wàcce ministre sëñ Cheikh Tidiane ma demal nga wax ko ni ko bu ko kenn defloo déclaration hostile au régime ci régime bi mu daan servir nekkoon na toog jàpp dignitéem def naa ko ci lu mat ñeenti ministre yoo xam ni ku ne moo ma yónni ci moom ma wax ko ko eh, mais gis nga jox la cëru politik nangu ko mu tax la sàllit mais xamuloo ni tur tur tur wi ñu la tudde du dugg ci bàmmeel waxuma la cëru politik mais tur biñ la tudde du dugg ci bàmmeel xam nga yàlla ban identité la reconnaître sa jaam xamul Samba xamul Demba xamul Suleymaan xamul Ibrahim cër tur ci buntu bàmmel lay yem yàlla benn identité rek la mooy sa jaam ñëw na mu xam ni jaamam la waaye bu fekkee ah cër biñ la jox dañ ko nangu mu jaral la salit walla xare mais réere réere sa bopp la ba tax na sago lu am solo la sago lu am solo la tabaarakallaahu ñu di ci bàyyi xel jarul xareek àdduna jarul leneen waaw bu ñu ko déggee rek mu am solo yal na nu yàlla may dal may nu déggin fa tabaarakallaahu ci biir ak ci biti ñu eh, jox sëriñ Babacar rek mu jàngal nu faatiha jàngal nu faatiha ñaanal nu Ah, surtout ci at mu bees mi yàlla defal nu ci xéewal defal nu ci jàmm defal nu ci barke defal nu ci wér waaw ñuy wax ndokkeel ñi fi teew ñëpp waaye yéen ñu di leen wax bonne et heureuse année yàlla defal at mu neex tabarakallahu ñu ngi balu àq ñëpp di ndokkeel ñëpp asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa waat di wax salaamaaleykum wa nuyoo waat rek ne nuyoo nag gu ànd ak cant cant gi nag gi nag ñu jëme ko ci Cheikh Alhaj Malick mii sant ko ko waxtaan wi Sidou Bakar ne Sidou Bakar ne fa tabaarakallahu te wax ju ne balaa dal xel balaa dal xel am fu mu wéeru am fu mu wéeru fa tabaarakallaahu te wax ji wéeru na fi mu war a wéeru kon ñu ngi lay sant di sant yàlla nag di sant yàlla nag ndax ku ñëpp di déglu ndax ku ñëpp di déglu war ngay wax ñëpp mën a dégg wax war ngay wax lu ñëpp mën a dégg tabaarakallaahu wax nga nag lu ñëpp mën a dégg yàlla na ko yàlla barkeel nit ñi dégg ko ni nga ko waxe ak fi mu jóge ak fi mu jóge ak ni nga ko nettalee fa tabaarakallaahu ñu di la sant nag bu baax di la gërëmit bu baax di ñaan yàlla taxawaay bii yàlla na ko yàlla saxal bi jaahi rasuulillaahi nii ñu ko ànde ak bokk yi nga wax ko bokk yépp ñu dégg ko ñu mat a ñaanal ndax nit ndax nit su fekkee ni lu mu dugg su fekkee ni lu mu dugg nga ñëw duggale ko ca nga ñëw duggale ko ca war na laa bàyyi xel nit ñi nag kenn amul seen pay nit ñi nag kenn amul seen pay euh, waaye yàlla mën na lu ne waaye nag yàlla mën na lu ne yàlla na leen yàlla fay te faye leen yiw te faye leen yiw ba seen xol sedd guddal seen fan wéeral seen yaram fa tabaarakallaahu ni ko xaaj malik waxe ni Serigne Cheikh mébét na ni Serigne Cheikh mébét na ngir ñëw fii Sidi Bakar ne maam Malick boo demee nga ni ko na takk mebet boobu sëpp ci kanamam ndax bu déwénee ñu daje fii incha nee dana ci neex lool ni ko nee na nafar bu baax rek ne comme ko waxoon na lépp na nafaraat rek baamu ne alquran rek la ñuy baamu kon moom it na baamu tabaarakallahu eh, sant nag bu baax nag sant nag waykat yi fa tabaarakallahu yàlla bu leen cat jàpp yàlla na ngeen jëriñoo li ngeen di way yàlla na ngeen jariñu ci ki ngeen di way wala boog ci ñi ngeen di way kenn ku ci nekk ci ñi ngeen di way wala boog ñi ngeen di nettali seeni way kenn ku ci ne nit jox na ko loxo aajoom faju kenn ku ci ne ne xam nga wax léeg-léeg nga wax ko muy waxu jamono ndax jamono jii ñu toll kenn ku ne yaa ngi ràcc di jëmale ci sa kanam waaye dafa am wax yoo xam ne yi bu jubee ci nit ki laajal ki ñuy wax ci moom kan la ndax li ñuy wax ci moom am na wala amul tabaarakallaahu ne benn góoru pël fële ca wetu déegu dafa nekk fële ca fu ñuy wax déegu ñey ca gannaaw gànjool ca gannaaw gànjool suñ <coughs> fa daan dem xew dañ fa daan dem xew maa jël ci oto yóbbuwaale ko moom mii moo ko daan jël ci oto yóbbuwaale ko delloo siwaat delloo ko benn bés mu wàcc ñuy waxtaan benn bis mu wàcc nag ñuy waxtaan ku miinoon Tiwaawan Tiwaawan la nag ñuy waxtaan ñuy waxtaan ba mu di ma nettali ba mu di ko nettali mujj waxanteeg Serigne Babacar Sy. li mu mujj waxanteeg ak Serigne Babacar si ma ne ko loo mujj ma ne ko waaw lan nga mujj waxanteeg moom. mu ni dafa ñëw nuyu ko. mu ni dafa ñëw nuyu Serigne Babacar. Euh, ko daf ko tàggu. daf ko tàggu. ni ko dama bëgg ñibbi. ko dama bëgg a mu ni ko mu ni ko. demal ci Mamadou. demal ci Mamadou. muy papa Mansour. nga tàggu ko. góor gi ne ma jóg di dem. góor gi ne ma jóg di dem. dégg kuy wax dégg koy wax sëñ Babacar. ni ko dañ ma nommé Bilal. ni ko dañ ma nommé Bilal. may nodd ca jàkka may nodd ca jàkka ja. ma bëgg ma bëgg. nga jox ma ndigal ci nodd gi nga jox ma ndigal ci nodd gi. te ñaanal ma ci góor gi nee na ma dem. ci suba sama dellu si ci sëriñ bi. ci suba sama dellu si ci sëriñ bi. mu ne ko waaw demuloo. mu mu ne ko déedéet dama am gàkk. muy sa mu ne ko luy sa gàkk. mu ne ko man dama xamul woon ni. nodd dañ ciy joxe ndigal dañ ciy joxe ndigal di ci ñaan yàlla ma dégg waa ji di la ko wax ma dégg waa ji di la ko wax démb nga ñaanal ko mu ni ko waaw mu ni ko dañoo mën a ñaan rek dañoo mën a ñaan ñu mën a ñaanal ñu mën a ñaanal ñun itam dañuy ñaan ñu di leen ñaanal waaye nodd moom laajul loolu yëpp mu wax ma ni ma nag mu wax ko nag ni ko nag sëriñ Babacar Si sëriñ Babacar Si mayam mayam jaxasoowul ak moom xamuloo ko. ku jaxasoowul ak moom xamuloo ko. mu ne waaye ci biir kër Seydi Hadj Malick. waaye nag ci biir kër Cheikh Seydi Hadj Malick nag. man mag laa. mu ne man mag laa. am na lu ma yàlla may. am na lu ma yàlla may. waaye itam. waaye itam. yëguma lim ma may. yëguma lim ma may. ndax sama diggante kër Seydi Hadj ndax sama diggante ak kër Cheikh Seydi su ma fa duggee rek su ma fa duggee rek xeeb li ma am. ma gis ni ma gis ni. kenn ku ci ne. kenn ku ci ne. yaa ngi ak sa may. yaa sa may. sa façon mu may sa façon may ku leen xamul nag ku leen xamul nag leen mën a tàqale te ñoom te ñoom xam seen may xam seen may dafa jafe ndax dañ ko dul wanewu koo ci wax rek koo ci wax rek mu dóor la ci faatiha mu dóor la ci faatiha ak salaatul faatiha waaye nag waaye nag seen faatiha seen ak seen salaatul faatiha ah bokkul ak suñu bos yi de bokkul ak suñu bos yi de fa tabaarakallahu kon waaye du tere rek waaye du tere rek ñu ñaan lonk ko ca ndox mu yóbbuwaale ko ñuy dellu nag di santaat ñépp nag ni ko maam Malick waxee rek ne ku waxit lenn li rek ngay wax nag rafet rafetlu sant yàlla sant jaamu yàlla yi yàlla na yàlla yokk seen manin bi jaahi nabil nee lii mu wax it ñaan yàlla ci dëkk bi ñaan yàlla ci dëkk bi ci réew mi réew mi am jàmm réew mi am jàmm ñépp am jàmm bu réew mi amee jàmm rek ñépp daal di am jàmm yàlla mi amee jàmm yàlla nañ ko yàlla defal ci réew mi dolli ci li mu fi fekkoon dolli ci li mu fi fekkoon te moo ko fi indi woon nag yàlla nañ ko ci yàlla defal bi jaahi rasulillahi ne seen barke bàyyi seen barke maam yi barke jaamu yàlla yu baax yi ñi ñu xam ak ñi ñu xamul ndax mënuñoo xam ñëpp waaye ñi yàlla baaxal bari nañu waaye ah, ñi yàlla baaxal bari nañ de bari nañu lool tabaarakallaahu yàlla na yàlla nangu ñaan yi yàlla na yàlla nangu taxawaay bi yàlla na yàlla barkeel guddi gi ñu jariñoo ko barke bi topp ñu ba déwén ñu tasewaat fi ci jàmm yàlla nañ ko yàlla boole defal barke boobee nag ëmb lu ne ëmb xéewal ëmb yiw ëmb teraanga ëmb barke ëmb jàmm ëmb sutura ëmb mucc ak muccule yàlla nañ ko yàlla boole defal bi jaahi nabil Mustafa ne ku ko fekke ren yàlla na ko ko fekkewaat ñaar fukki at ci kanam wax ne amin yal na yàgg yomb na yàlla ne Mawlaaya Baay Abdul Aziz Dabbaax radiyallahu anhu sax fi de mën na ne ah sax fi de mën na ne waaye yàgg fi mën na ne yàlla nañ fi yàgg daan na ko ñaan tabaarakallaahu ñuy bég nag maam Malick bu baax a baax a baax di bég bu baax soo demee daal nga wax Cheikh Ahmed Tijani ni ko daal ñi ngi xaar ñi ngi xaar ñi ngi xaar rek yàkkamti ko nag yàkkamti ko nag ci jàmm ak salaam bi jaahi nabil Mustafa yàlla na óom yi sedd tànk yi sedd digg ginnaaw gi sedd ba mu mën a ñëw ñépp mën a ñëw fekke ko su boobaa yow it sa óom yi yàlla na sedd ne su ma bosam moom it yàlla na sedd bi amin bi jaahi nabil Mustafa wallahi sànq ba léegi ndeysaan yëkk yëkkati kii gi alhamdulilahi rabbil alamin mbokk yi mbooleem ñi fi toog nag Seydou bakka ne ñu ngi leen di nuyu ñu ngi leen di ndokkeel ñu ngi leen di gërëm ñu ngi leen di sant di ñaan yàlla lu ngeen mën ren yàlla na ngeen mën déwén lu ko ëpp bu nu fi jógee at mu bees mii yàlla na ko yàlla barkeel at mu ñu génn ba ñuy dugg yàlla na gën ba ñu génn bi jaahi nabil mustafa yàlla nañ ko yàlla boole defal ne sant nag xale yii nag ne ñaanal leen yàlla ba yàlla yóbbu leen ñoom xale yi ci seen maqaama maam ne ñoom it ñu dem bay taxawu lii ñu fekke ko nag ne benn waay nee na woon dañ lay ñaanal nga gunge ñu ba ca kanam ma ne ko waaw bu ca kanamee nag da ngeen di dem wàcc ma fi man de demagu man man de dewuma fenn la dem moom daal ku ngeen gisee ni ko ñu ñaanal la gunge la ba ca kanam nga gunge ñu ba nga dem bàyyi ñu dee ne moom bokk ci moom yow kay yaay dem bàyyi ñu fi ñun ah kay wallaay si bare fu kay barakallah kon ñu tàllal loxo yi jàng fatiha salaatul fatihi sante ko yàlla yéene waale ci ñaan yéene waale ci ñaan defaru ba déwén fekke déwén ak sago ak tal yàlla nañu ko yàlla boole defal fatiha salaatul fatihi amin amin wax leen amin ñi ngi ñaan wax leen amin allahuma amin amin ya rabbal alamin salaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu ah maa ngi fi toogoon njaboot gi ndax sëriñ Habib Sakho ngi nii ci sama wetu ndeyjoor sëriñ Babacar a ngi Sakho sama wetu càmmoñ waaye nag Papa Youssoufa Diop sànq bi sëriñ bi jóg dafa ma ne na fi Papa Youssoufa des wettali la waaye fekk ni loolu li woon yéeneem biñ ko koy laata sant muy doom di sët di jarbaat yal na yàlla taxawe ko te dolli ko kattan dolli ko faydoog maqaama bi jaahi rasulillahi sallallahu alayhi wa sallam e gàmm gi nag Abdoul Aziz ren Serigne Cheikh dafa joxe bay thème nee na ci ñépp waxtaan xam naa dinañu dem ci xilaasu sahab bi ngir barkeeloo ko ci guddi gi waaye nu sànni ci ay kàddu thème bi mooy lan al ilmu wal amal al ilmu wal amal kon loolu boo ko tënkee mooy liggéey walla mooy xam-xam ak liggéey yooyu ñaar nag mënuñoo tàggoo xam-xam kooku ut ba am ko danga koy jariñoo jariñoo ko nag dara ëpp ca doole liggéeye ko te liggéey ñaari yëf ku ko bëgg foog nga def ñaari yi may bëgg a wax képp ku bëgg a teraa ngay àllaaxira nga nangoo jaamu yàlla walla déet ku nangoo ku nongoo ku bëgg a teraangay ngay àddina foog nga nangoo liggéey kon yooyu ñaar muy xam-xam ak liggéey mënuñoo tàggoo ci gor gor bu bëgg a teraa ngay àddina foog mu nangoo tuur ñaqam gor su bëggee terangay ala alaxira foog mu nangoo sonn ci jaamu yàlla te it nag loolu la du yàlla sant dunde sa ñaqu jë dunde sa ñaqu jë bépp biir boo xam ne benn luxma fanaan na ca bu lewul ndax lew bokkul ak araam léeg-léeg mu lew la te du léeg-léeg mu mu mu mu xaraam waaye léeg-léeg it mu dagan te du la lew bu daganee te lewu la nag day wuuteeg bu daganee lew la xalaalan tayiban du noonu xalaalan tayiban mooy mu lew ba pare dagan loolu la muy tudd lew ba pare dagan te léeg-léeg mu dagan te du lew léeg-léeg it mu lew te du dagan te nga war a boole ñaar yi nag man cee dund ci sa wàllu yàlla moo di lu dagan mooy li nu añe tey am na ñu añe ceeb ku wottuwul am na ñu añe leneen ceeb dagan na ci jullit pour mu lekk ko mais dafa war a lew nga door koo lekk lew gi moo di waxu nga jaar bitigu jàmbur yenu fa saaku ceeb te te jënduloo ko yóbbu ko sa kër bu ceeb daganee it lewu la kon dañu bëgg loolu nga fexe ba am njëg gi waxanteeg borom ba jënd saaku ba indi sa kër mu boole lew ak dagan xalaalaan tayiban loolu nag liggéey koy joxe ku ku liggéeyul doo mën a am xalaal waxumaa di am tay maami yonent bii sallallahu alayhi wa ñu bëgg a waxtaane muy Abdu Mutalib te Abdou Moutalib mooy seebatal am di moom kenn moom moom ñaari tur yi arab dina ci bari lool ku am ñaari tur benn bi kinaaya lay doon benn bi turu wa nga juddu xaqiqa ba doon mag ñi sax daanañu ko am ci réew mi ku am ñaari tur yoo xam ne bii daf la dab bii da nga ko judduwaale waaye góor gi de seebatal am di nga xam ne moo jur Abdullahi mi jur yonti yàlla Muhammad boroom guddi gii tax noo fanaan biti boroom guddi gii tax Seydi Aji Malick woote woote bu réy bii ba àddina bépp wuyu ko kooku borom juddu boobu maamam mi jur baayam ci la ñuy tàmbalee waxtaan tey jëm ca baayam Abdou Moutalib tur bi daf ko dab waaw waaye tur yi mu juddu waale mooy say batal am Seydi El Hadji booy xool fi muy nose di tegtale maami yonent bi daa gis fu mu tudd Abdou Moutalib waaye it léeg-léeg mu bàyyi turu Abdou Moutalib indi saybatal am di saybata nag mooy turu cosaan bi moom la judduwaale ndax góor gu ñu wax xaasim nga xam ne Abdou Manaf ko jur te Abdou Manaf xuseyee ko jur ak Faatumata bintu Saadi mu ñëw màkkatal mu karama jógee saam jël fi soxna soxna bu ñuy wax nga xam ne ka jur mooy xusaa géej gu géej gu ñu wax xusaa ka ca magoon tudd Ulaylin moo am doom bu jigéen bu ñu ubbee xusey jógee saam ñëw màkkatal mu karama bëgg soxna di wër nag ba gis xale boobu ne kii laa bëgg soxna ñu ne ko kii mooy doomu boroom dëkk bi ëpp na la soxna mu ne man cosaan laa fi laa bokk noo fi bokkee mu lim ay maamam ñu xam ne kii cosaan la dafa yàgg àll ñu waxtaan d'accord fob ubbee mi uley liin jur te benn doom la ci baayam te baayam a ilif dëkk bi yor kilifteefu kaaba gi ñu dox ngoro ga mu jub ñu fob ubbee may ko xusey xusey nag tuddul xuse tur wi daf ka dab moom itam li ma doon wax rek léegi xusey mu ngi tudd mu ngi tudd mu ngi tudd Seydun bi mu juddoo ñu ngi ko tuddee Seydun bi mu màggee nag histoire tax mu ànd ak ndeyam Fatimata bintu Saadin Rabia jële ko Makka yóbbu ko Saam ba mu ñibbisee nag ñibbise googa moo tax mu tudd Xusey Xusey mooy firi fin de arrivée kuy door ak si alquran la ca sóoratu am na fële itam ca sóoratu Xasas euh, euh, wa wa madina mooy ku jógee fu sori agsi yonti yàlla yonti yàlla Moussa ba mu reyee nit ko tey daw ko ko gindi moom it noonu la tudd moo ko wax ne ñu ngi lay wër buñ la jàppee rey pour daal gàttal mooy xusey loolu lay firi loolu mu ngi ko am nag bi mu jógee saam ñu makkatal mu karama ñu dox ngoro gii nag mu jub ñu fopp ubbee mii may ko góor gii di xusey mu taawloo ci Abdou Manaaf am ca Abdou Moutalib am ca euh, Abdou euh, la fa taawloo ak Abdoul Xoussa ak Abdou Déri ak Abdou Asedin la ca am Abdoul Xoussa moomu nag Abdou Manaaf mën nag di taaw moo jur Xaasim Xaasim jur Sebatal Amdi Xaasim liggéeykat la woon homme d'affaires la woon xam nga lu mu doon jaay daf daan jaay xorom polle moom lay sëf ci ay gëléem di dem ci marché yi di ko jaay ba mooy medinatul munawara booba tuddagul medina mu ngi tudd yasriba alxuraan nag la koy nettali yaa ahla yasriba la maxama lakum farjon booba màkk yasri medinatul munawara mu ngi tudd ba mu yóbbu fa marchandise dafa am marché dañuy topp marché yi par marché defe naa am na sax am na sax léegi Sénégal marché dëkk sàngam marché dëkk sàngam ñii àllarba ñii alxemes ñii dimanche yasri ba am marché bu rëy moom mu jóge màkk moom xaasim yóbbu marchandise màkk euh, yasri ba jaay marchandise ma moom itam mu jeexal mu doxantu tàkkusaan em ci salma salma jëkkëram di door a faatu muy xale bu rafet mu ne bëgguma say àll waaye kii de su ma bëggoon jaral na ma say àll njaatigéem na ko dinaa ko toppatoo toppatoo mbir moom moom it mu jub ñu fopp nag Salma may ko may ko Haasim mu céetal ko cër ga mu continuer ci beneen marché waaye nag def benn not yónnee ko frère am bu ñoo Mutlab ñoo bokk ndey ak bàyyi Mutlab a nga màkkatal mu kanam ne ko sëy naa àll gën lu ma woon xalaat naa ne ki ma yàlla booleel ànd naag dara man nag maa ngi continuer ci marché yi su ma dellusee incha allah toppatoo sama problème bu bopp su ma dellu nag bàyyil xale boobu xel ndaw soosu xel ndax am na lu mu àndal te am naa ca yaakaar continuer faf dee ca voyage bi Salma ëmb mucc doom bu góor mu judd andiwaale bejjaaw loola waral si ebatal am di ñu ne xamuñu turu papaam ah, ah, xamuñu papaam dee na xamuñuy bokkam te it bàyyi joxe tur ak sant bu doom juddoo lu dul dafa am lënt ndey dooru jël mais bu amee ndey te ba ba ndey jël sant na la wóor ne doom jooje ndey lay doon waaye dootu doon na bàyyi ñu fopp tur wa jàpptal ko ne mu juddoo indiwaale melokaan wa muy sey batal am di mu nekk nag yas ba moom di fa nekk di fa nekk di fa nekk bi am fa juróom-ñaari at mais xamul néeg pàppam gajoog baayam xamu te baayam dee na mu nekk nag ci néeg ndeyam ak i nijaayam ba benn góor bu ñoo muqira homme d'affaires la mais sportif man la day def sport moo jógee Makka doxi soxla a Munawwara fekk fa Saybatal Amdi ci biir groupe xale yi ñu ngi fo mu gis Saybatal Amdi lu mu tëb hauteur bu wàccee benn xel du ko tëb bu demee ci poids yi bu yëkkatee poids su ko tëralee benn xel du ko àttan <laughs> sallallahu alayhi wa sallam booba leeru yonent mu woo ko mu wuyu ko daw ñëw mu nekk ko doom foo dëkk mu ne maa ngi dëkk fii ci Yatrib fi la sama néeg ndey bokk waaye dégg naa sama gajog bàyyi nag màkkatal mu karama la mu ne du deñ lii man te génn bànni xaasim xamoon naa ne deret jii foofu la bokk doom demal foy loolu laa doon laaj mu ne papa yow foo jógee mu ne màkkital mu karama mu ne dégg naa sama pap am na frère bu mbokkal ndey ak baay mu nga fa xam nga ko mu ngi tudda muutalab mu ne noo bokk mel ni pénc démb laa tàggoog moom ci ngoon kañ ngay dellu bu sama soxla faj woon du ma fanaan tey soo delloo waxal sama frère baay boobu ne ko moo gaaw a fàtte dénkaane sama baay dégg naa def na testament pour man jox ko ko judd naa bi am juróom-ñaari at xamul ci man dara mu xiira boobu nag dox soxla dem Makka gis mut Mutlab jox ko message ba dafa xisi bi dafa gudd Mutlab ñëw ma ba fexe ba récupérer ah, seebatal am bi ak xeex yu metti reyante am na ca waaye fexe ne ba delloo ko Makkatal Mukarrama ba mu àggee na la ko ne doom ni nga mel ci taar leer gi nga àndal bëgg ko la xam ak bëgg fis bu taxee nga nangu ne sama frère la jur màkk dana leen rey ndax nu néeg bii nu bokk dëkk bi dañu yàgg sib sone ca sunu maam Ibrahima ba léegi kon nag nëbbal sa tur moo ma wax ne dama tukki woon ci àll bi jënd la kun abdun li mutla ñu naan jaamu mutla looloo ñu ne mutlab waaye turu piir mooy Cheikh Badara Amdi loolay dox bàyyi bi ki fi indi woon di mutlab toogaat juróom-ñaari at bàyyi bi dee amu fi néeg ndey frère papam dee na dese wu fi kenn yàlla yenkewal ka xam-xam bu mu xamalul kenn dëkkul Makka fekk na sam-sam buur bu ñu Omar ñu monte ko benn coup mu toj sam-sam mabba teen ba fob alalu baytul baytul maalu kaaba gi dugal ko suul ko maasele ko jaar ca ak ay fas ci guddi dem kenn xamatul fa sam-sam loolu am na lu mat lu mat téeméeri at ak fukki at kenn xamatul sam ñu naan am na teen bu fi nekkoon bu tudda sam-sam maam ya ka defoon ni maam Ibrahima di tudda sam-sam di tudda maam ya ba góor gii nag di Abdou Moutalib di seebatal tëdd guddi rek ñu ne ko boo xëyee gasal sam mat moo na xamul ko ci dëkk bi xamul riyeeg àngali mu tëdd ñu wax ko loolu mu yeewu xamul fan la ci ëllëg sa génte nga répété waat xamul fan la njetteeli fan ba ñu ne ko soo xëyee ëllëg demal ci pénc bi daa fekk ñu rey fa benn gëléem fa ñu loje gëléem ga ak fa ñuy tuur sébbërit si diggante boobu daa fa gis benn këru xorondom këru xorondom boobu daa fa fekk benn baaxul buy cof foofu la sam-sam ne min bay ni farsin wa dëbbin inda xariyati nam lin inda naari xoraa bi bay ni asib daa fekk xor euh, baaxoñ buy cof foofu la mu xëy jël bagaasam am commencé gas ñu ne ko déedéet loolu du mën a nekk loolu du mën a nekk yow dëkkoo fi xamuloo gox yeeg koñ yi sam-sam téeméeri at ak nangam noo mën a fexe ba ba sam-sam faale wu muy gas rek gas ci suba ba ngoon ci ëllëg sa mu xëy tàmbali gas bi mu di jot mu dal ci kémi ju teen bi ah moom kon wax na dëgg moom kon wax na dëgg dal ci kawam na a teen bi moom loo ko sunu teenu maam la barke de bëgg fi ñëw yaa nga jógee yasri ba teen bi sunu teenu maam la ñu xëccoo teen ba xëccoo ba metti ñu leen uti kaay bu nu àtte ñu takk seeni fas ànd groupe di uti ku leen àtte ci teen bi ñu nga jëm yaman faf réer réer xamatuñu yoon di réer ba la amoon ci lekk jeex la ñu amoon ci ndox jeex fas ci mar gëléem yi mar ba mënatuñoo dem ñu d'accord ne kon ni ñuy def moo di kenn ku ne na gas bàmmeelam tëdd ci wetu bàmmeel bi ku jëkka dee nu ba max li ci que mujjee dee tan yi lekk ko tan mu lekk kenn moo gën tan lekk mbooloo kon kenn ku ne jëkka dee nu suul la kay mujjee dee tan yi lekk ko mu ne d'accord maa ngeen ci loolu góor day yëngatu ba dee ci kaw tegam nan leen takk jóg fa mu takk gëleemam gi jam gëleem gi gëleem di yëbar ñett dox na fa téel a fekk toj def pël pël pël pël pël pël pël pël pël mu a gaa yi kaay leen naan te sangu te wëgg gëléem yi yonent yàlla Muhammad a bari doole gaa yi ñëw naan wëgg gëléem yi sangu ne nan continuer am ko ca ne yéen day seen xel rafetul koy xulool teen ca dëkk ba ngeen ànd ci àll bii réer yàlla may ko beneen teen ci àll bii du ngeen xam ne ki kamay teen fi moo ko kamay teen bële nan ñibbi ñu takkaat seeni bagage delluwaat Makka mu continuer gas ba am ñaari fan daj nag xasal xasaale yi baytalaayu suma tama ba xaalis say bata dab benn code beeru urus moo de moo la alalu kaaba ga ak benn jaasi urus ak benn mbubu urus ñu ne ko nag lii nag moom moo ko moom moom lii moom mën na la bàyyi sax ak teen bi waaye kii sunu alali maam la woon dañu koy séddu bàyyi laa ji Maalik ne dañ ko mujj wantale ay bant def bulu perte ak bul pour moom ak bul pour kaaba gi ak bul pour ñoom góor gi ne xasal xasaali bi bul way abdu baytalaayi ñaari code béer yi kaabe keke gaju daal na su ma tamaa affaire ba jeex ñu ne Maodo des tëddi mu ne ah jeex na ndax baaxaali say bata la jëlee tout say bata ak gañu ca dara mu continué nag ca la tëdd ci taati kaaba ga wax wax bu ba nag ne yàlla soo ma mayoon fukki doom yu góor yu may dimbali ci sama liggéey bii dox sama diggante ak sama noon yi dinaa la sant bare kenn ne gam gam gam gam garab sax ci ndigg li ci gént gi muy xool garab gi muy def col col col col benn méng ci asamaan mu xool ci suuf gis reen yi dem reen yi dem benn méng ci biir suuf mu ne tërit yow ci nelaw xamul dëkk bi xamul waa dëkk bi miinu fi mu tourné benn koñ dajeeg benn waay ne ko ndax amul kuy firi gént ci dëkk bi mu ne ko ah kay kër làbbi bële boo fa demee lu waay gént ba dem mu firi la góor gi dem ci làbbi ba wax li mu gént mu ne yaa gént la mu ne waaw mu ne ndéem yaa ko génte ni nga ko géntee ndéem dëgg la lu mu yàgg-yàgg bu dul yow di ko jur dina jur doom joo xam ne asamaan suuf àddina nit ak jinne daañu wéy ci waaw ci la dem nag takk faatu ba dëbbentu masxoo bi yu taaloo ci abdu kaabata teg ci abdu manaaf bàyyi ali teg ci subayru teg ci abdulaay bi juree góor ga nag di dem di dem di dem ba aw fukki doom yu góor ak juróom benn jigéen ndax am na umaymatu am na bara am na bayta am na atikatu am na arwa am na safiya juróomi bi bokk ndey ak baay benn bële moo bokk ak am sutu ndey ak baay te seen ñaari baay ndey ya seen ñaari baay yaa bokk ndey ak baay ndax xaalatu wahab la ak woy bu ki jur altu aminatu ñu fa aminatu jox ko yu teel mu jox ko góor gi Abdoulaye moom ci Muhammad képp sallallahu alayhi wa sallam muy taawam di caatam ne bi taaw la ci baayam di caat ci baayam di taaw ci ndeyam di caat ci ndeyam xejul ak kenn fenn fu mu jaar moom kenn dafay jaar ñu fab nag jox ko bàyyam bi mu ànd maam bàyyam bi mu àndal nag te mooy sebatal am bi mu am ci mu xam yi mag dara rek amal sax am satu nu dem doom ya mat na am na ca fukk fàtte na la mu digg woon ak yàlla ñu yee ko nag guddi ne la nga digg woon ak yàlla mottali ko wala yow foo nu soroo mu xëy rey nag saraxe te daal ju nekkatu loolu mottali la nga digg woon ak sa borom mu xëy rey gëléem saraxe ñu ne ko loolu dañ la waxoon danga waxoon ne soo amee fukki doom yu góor daa ca rey kenn sante ko yàlla waaye am nga fukki doom yu góor kon mottali la nga diggante woon ak sa borom waaw fukki doom yu góor yu bokkul ndey sëñ Habib ku la neex rey loolu ku la neex rey mu xewoo jabar yépp dajale leen nee ku jur doom bu góor ëllëg na ko sang fekk ma kaaba ga kenn ku ne avertir seen néeg day ñu dajal ci kaaba ga ñu solal xale yi ay yére takkaleen ay tike génn banti vantale buddi bul ya mu dal ci Abdoulaye mi jur yonent bi te mooy bakkanu góor gi góor gi ne cas ndeyjoor ba téye ca loxo ba téye paaka buum fu mu jëm safa ñu dogale ko mu jëm wa ñu dogale ko mu jëm safa safa isaaf la ak naayilatu ku góor la ak ku jigéen isaaf góor la mooy safa naayilatu jigéen la mooy marwa dañu bëggante woon te amuñu moyen la ulamaaw siré yi wax daje fa tooj yàlla jox na ko xam-xam ñu laajte ba xam lan la ñuy woo ci mbir mi ba ñu demee nag laajte la leen wax ne seen dëkk ku fa rey nit lu ma joxe dama si intérêt ñu ne fukki gëléem ngay joxe boo reyee nit mu ne kon su ngeen demee foofu leen fukki gëléem teg ko teg xale bi wantele bante bee gëléem gi xale bi bu dalee ci gëléem yi ngeen rey gëléem yi saraxe bu dalee ci xale bi ngeen dolliwaat fukki gëléem sii doo bu leen tay fa sii doo wa sii doo ñu di teg pour fukk par ñaar fukk ba mu ma téeméeri gëléem bante bu door a teggi ko ci Abdoulaye dal ci gëléem yi ñu wantelewaat mu dal ci gëléem yi wantelewaat mu dal ba muy ñetti yoon ñu door a rey téeméeri gëléem yi ba Alaaji Maalik ne gëléem yooyu kat nit ña ak tan ya ak bukki ya ak gaynde ya ak ndeg ya ñëpp yem ci yàppoo ñëpp a lekk kon mucc na dégg mucc na fi la bàyyi laa jëmaa tàmbalee nag wa abdu muttalabin min baadu mara ila fa taati suurata saatil majdi wal karami wa abdu muttalabin min baadu mara ila fa taati suurata عنا